xaw ma nag ndax yéen a ngi bàyyi xel ci li nga xam ne moom moo xew ginnaaw bi ñu amee victoire bi <clears throat> te directement à nos autorités. Naby Vision. bi ñu amee victoire bi ba pare damay tàmbali déjà jaale sama xarit bi Malick Diassène ci génn papaam àddina yàlla na ko yàlla xaare ajana yàlla na suuf woyof ci kaw mais dama leen di wax li nga xam ne moom moo xew ginnaaw victoire bi ginnaaw victoire bi. est-ce que xam ngeen il y a des autorités des autorités yo xamné des gendarmes gendarme lañu wo woo gendarme yi nek di lacrymogène jeunesse sénégalaise bi nga xamné ñom ñoo doon manifesté wu ñoo contane Sénégal bo manifesté ñu lacrymogène la bo jubilé ñu lacrymogène la Sénégal rek la am ci aduna bi ana doomu adama ak jubilé victoire maire bu mécontent ay maire yu mécontent wo seeni ay xarit gendarme ay commandant ñu dem massacrer xalé dama leen di won vidéo bo xamné mom moma ci gëna intrigue bi nga xamné té te autorité yi dañ ko war jël comme exemple ce commandant doit être traduit en justice dañ ko war japp yobu ko tëj ko comme bép sénégalais ba paré atté ko lolu moy deug Naby Vision. gis naa nag ñu bari ci yéen ñu ngi leen bëgg a daaneel ci ay piège waaw noppi leen te liggéey dama leen bëgg wax dara man Ousmane Tounkara laa tudd du ma noppi parce que bokkuma ci benn parti politique te dara tënku ma du ma noppi lépp lu ma gis nit di ko fi def ci ñaawteef dinaa ko wax ak fu borom mën a féete nag danaa ko wax donc il faut ngeen xam lool man duma ma noppi je ne me tairai ndax bi ma ñëwee fii di xeex. bu ñu noppi woon bu ñu leen topone ak seen tapale ak seen noppi leen te liggey ni kon rew mi du avancer fi mu toll nii waaye man duma ma noppi donc bu da ngeen bëgg teunk wa parti ay parti politique man ngeen wax ak ñom ñu noppi mais man alhamdulillah buma ma bëggoon bokk Pastef nak man na jënd carte bi tay ma bokk ci tay fu ma bëgg bokk man naa ko ndax ñepp xam nañ ne Pastef rek la bëgg ndax ma ngi ni di ko doxal waye du de ndax man dara discipline de partie tënku bokkuma ci ab parti politique mën naa wax saa bu ma neexee dara tënku ma voilà du ma noppi léegi dama bëgg ngeen wax ma ban ban dëkk bu normal moom mooy def lii ay doomam ay xale yuy jubile maire woote un maire mécontent boo xam ne dañ leen duma mu woo ab commandant gendarmerie xaritam commandant gendarmerie boobu yëkkati ay élément dem sànni lacrymogène ci saal bu tëju ay nit nekk fa c'est extraordinaire yéen laa bëgg ngeen xoolal image yi seen bopp. Naby beneen baa ngi naka ngeen mën a ab commandant de gendarmerie bi war a aar ay doomu aadama di jël ay doomu sénégalais di leen def lu mel nii kila la war a aar di jël ay lacrymogène di ko sànni ci ay salon gendarmerie bi mi ngi doon gendarmerie njum ngente donc bu kenn réer dañu bëgg a ngeen yónnee ñu turu commandant bi gendarmerie njum ngente foofu la nekk la gendarmerie njum ngente la nekk le commandant Il est à la gendarmerie de Ndjungente. Le, commandant doit être traduit immédiatement en justice. Les commandants, yi nga xamné ne dañoo jubadi ñuy ay commandant ou Macky Sall dañ leen traduire immédiatement à la justice parce que li naka nga ko mën a justifier Té du ben endroit ci ay béréb yu bari la xew ci Sénégal dégg na bi jeunes yi di ñoom ñëpp dañu leen jàpp lacrymogène leen et ce qui est extraordinaire lacrymogène grade bi gën a ñàkk xorom ngeen yor ci Sénégal Sénégal lacrymogène biñ fa yor mooy grade bi gën a bon ci lacrymogène yi parce que lacrymogène boo xoolee dafa am grade A am grade B am grade C maanaam grade A mooy bi baax boobu dañ koy yóbbu ci réewu tubaab yi da ngay gis tubaab yi bu ñuy manifester même boo sànnee lacrymogène mën nañoo continuer xeex ak yi parce que tuuti cafte lay def sa bët yi rek wala sa bakkan mais grade B dañ koy yóbbu ci yeneen réew yi gën a xaw a sous-développé tuuti mais grade C bi maanaam ci ay woo zone lañ koy yóbbu Macky Sall yooyu la dem jëndi ay grade sa lacrymogène dama bëgg a déjà ngeen comprendre ne da ngeen war a retirer waa tous ces lacrymogènes de la gendarmerie parce que lii fan ngeen ko teg lii mooy lan mais ay reykatu nit la ñu ces gens là c'est des assassins naka ngay jëndee lacrymogène nga koy sànni ci ay kër ay xale mais lii naka nga ko mën a expliquer avec ça ngeen yaakaar ne defar réew mi dina yomb lii ay autorité yu jubadi rek ci biir réew ngeen defe ne lii dina yóbbu réew kanam nos autorités je pense que lenn aussi dinaa ko mën a ñaan suñu autorités yi te suñu président Ousmane Sonko kenn du layam layame say choix parce que tu es quelqu'un qu'on aime énormément et qu'on respecte énormément mais man dinaa la wax ne soxlawat ngeen remaniement ministériel bu gëna a gaaw parce que am ngeen ay ministres yu yéex am ngeen ay ministres yu màgget bonuñu bonuñu c'est de bons choix mais situation bu ne dafa obligé situation oblige situation bu urgente da ngay jël nit ku gaaw te mëna def liggéey bi quelqu'un comme gagne Demba Touré xamna na ku ko joxone ministre de la justice wala ministre de l'intérieur mbiram dina gaaw lol même fadi Keita mii am fulla am fayda am pas-pas gis nañ ko directeur campagne d'accord mi ngi CDC mais xamna naa ne ku ko ministre de l'intérieur mbir yi dana gaw lol donc je pense que il faut que ñu jël ay jeunes. nabi Vision. nañu jël ay jeunes teg len ci place yu quoi parce que les ministres sont sont vieux ministre yi ñu jël ni, monsieur le président màgget nañu quoi amna yenen amna am ay étrangers yu ne xam nga ministres yi màgget nañu men y a des ministres qui sont très lents dans leur fonction ils ne sompa pas incapables nag déedéet mais situation Sénégal moo favorableul ak loolu xam nga tey mënuloo ne tool bii mi ngi booy xam ngeen li may wax xam nga tey to am na tool ñun boo demee ci suñu kaw gi ñun béykat yi xam nañu loolu am na tool fooy toll ñax ñax mi day ëpp day jaggi dayoo nga war a jël ay liggéeykat ay surga pour ñu bayal la tol bi mais do dem xoli ay surga yu gëna a yo xamne sa way bala ñuy bay tol bobu tooy tool bi manam jéggi dayo non ils sont vieux man yenn ci suñu ministres vraiment dañu wara dem retraite wala nga tek leen ci yenen place yo xamne wa, wa deug yalla du urgence te Sénégal lepp urgence la donc je pense qu'il faut rajeunir le gouvernement ñëwaatal ñu bari nga nga tek leen nalé nga indi ay ministre xalé yu ndaw ay ministre yu xarañ yu actif ñu def liggéey bi quoi parce que ça ne va pas parce que li un bon ministre de l'intérieur va ouvrir une enquête judiciaire très rapidement dina wax ak juge yi ñu dem jappi band yi nga xam ñom ñoy def ñaawte fi mais ça ne va pas quoi ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas monsieur le premier ministre ça ne va pas dafa na mbir yu bari war ngeen ko mën a jubbantiwaat ko ci nu mu gën a gaawee. na Vision parce que am na ministère yu bari yoo xam ne gars yi liggéeyuñu quoi liggéeyuñu ils ne travaillent pas voilà du ma ne mënuñu du du du ñàkk man mais ils sont lents maanaam la lenteur nous tue le temps on ne we against time on est contre le temps ñii ne liggéey leen liggéey leen liggéey leen am na liggéey yoo xam ne mënoo koo def yu can't do it frustration bi bari na xoolal tey rek ñu ngi wax Nous ngi au Canada Ottawa ah, ci ambassade a détournement 3,5 milliards ñaata ambassade ci a bi ay problème consulat yi carte rien ne marche rien Le pangi de takatembe ça ne va pas je pense que les changements doivent être immédiats Nous devons taxaw ci mi pour changer prenons les hommes qu'il faut à la place qu'il faut et très rapidement Magati, on n'a rien contre eux on n'a rien contre but we have to go fast kuy fast track ku bëgg a gaaw doo jël ay nit yu yéex naka ngay demee course course su fasu naaru góor nga yóbbu monat mais il faut y penser pourtant mbonaat góor la mbonaat dafa gore mbonaat góor la de mbonaat góor la waaye gaawul je pense que c'est il faut ngeen xoolaat ngeen defar remaniement bu gaaw on n'a rien contre ces gens qui sont là Le président Ousmane Sonko ken de débattre yow ces choix mais toi-même tu vois que les choix sont là voilà je pense que vous devez parler avec le président de la République ngeen la def ay remaniement te Samba ken kenn ou ko ngeen dàq ko fi ni élection yi passe, na jël leen Samba Ndiaye taxañ ko sanni ko ci ñax mi baaluñu ko fàttewuñu ko ba pare ngeen jël ay nit yu xarañ teg leen à la place qu'il faut ñun duñ leen ŋaññ dañ leen di supporter dañ leen di gungee dañ leen di yëkkati waaw. Naby Vision. le président Ousmane Sonko loo def baax na dañ la ci yëkkati dañ lay gunge waaye ñu yéex ñii jëla leen leen fi ngeen sànni leen ci xaj vraiment ngeen jéggal sama kàddu yi waxewu ma ko noonu waa ah, ngeen jéggal ma waaye jëla leen fi quoi ñi yéex ñii vraiment il faut les amener soit à la retraite wala ngeen yobulen ci yenen position yo xamné c'est des positions de conseil tu man nga jël ministre de l'intérieur bu gaaw ba général Jean-Baptiste Simpson, conseiller spécial bu soxla yenn conseiller, mu dem ci ministre de l'intérieur Jean-Baptiste Watanagmo. mais jean mais le premier ministre il n'est pas il n'est pas il n'est pas vraiment actif quoi comme ministre de de la justice aussi c'est la même chose xaw il n'est pas actif xaw lan mo lan mo fa nek mais ça ne va pas quoi xam nga c'est trop lent voilà c'est trop lent quoi te dégg l'ambassade, euh, ambassades yi ñu ngi jaay rendez-vous yi ambassade et consulat yi ñu ngi jaay ay rendez-vous rendez-vous yi yàgg na te ñu ngi koy jaay voilà bari na quoi ça ne va pas ça ne va pas hein. ça ne va pas les choses ne va ne vont pas te ñun ñu di casse we don't want that bugguñu di casse waaye ça ne va pas les choses ne va pas ne vont pas voilà les choses ne vont pas yéen a qui bàyyi nitu Macky Sall bandi yi ñu ngi nekk ñu ngi doxal ñu ngi les ministres ils sont là ils sont vieux voilà on est en course de vitesse donc on n'a pas besoin des des des des tortures soxlawuñu lolu. Nabi Vision. soxlawuñu lolu. on a besoin des personnes qu'il faut à la place qu'il faut c'est à revoir Remonument pour gaaw def nga essayage bi six mois 7 mois L'IPAN, man mi à côté yëpp xam ko te yow rien ne va ça ne va pas ça ne marche pas pour le moment voilà du du du assemblée nationale rek sa du problème Nous, ñun pas de casse. mais l'Assemblée nationale vous permettra à passer des lois mais quand tu passes des lois il y aura des gens yoo xam ne ñoo war doxal loi yooyu donc je pense que remaniement bu gaaw jël xale yu xarañ mais xoolal Pastef ñaata xale yu xarañ ñoo fa nekk xoolal Sénégal ñaata xale yu xarañ ñoo fi nekk xale yu xarañ ñoo fi nekk yu gaaw y a des jeunes très rapides Il y a des jeunes très rapides et très efficaces loolu moo fi am am ñoo xam vraiment c'est pas doxul quoi ça ne va pas parce que c'est les hommes de Macky Sall qui sont sur place toujours. Nitou Macky Sall le système est toujours en marche et très puissant. Nabi Vision. L'exemple Doro Gaye Doro gendarme bi nga facilité Doro mu Sénégal mais le gendarme a été libéré en liberté provisoire Yo n'a libérer un délinquant comme Doro Gaye mu daw le gendarme qui a facilité sa libération un délinquant connu parce que gendarme Bobo on connaît qui il est il nañ ko vraiment I hope so EBS ba I hope so I I hope very much so but things are very slow because they are killing our kids they are still xam nga benn bakkanu doomu aadama bu rot benn bakkanu doomu aadama bu rot yàlla benn bakkanu doomu aadama moo gën a valeur adduna bi yëpp naka lañuy bàyyi ay imbécile di rey ay nit ñu nekk ci biir dëkk bi di dox facilement naka la ñuy bàyyi ay homme de tenue nekk ay délinquant nekk ci biir gendarmerie bi regarde voici di lacrymogène ay xale parce que ñu benn maire woo leen voilà voici le maire les appelle ñu dem ñu lakk ñu ma jëm doomu jàmbur lii day bàyyi sekkal lii day bàyyi sekkal ci doomu jàmbur yi ñii mën nañoo jaar fii am ay asma wala ay am ay problème respiratoire waroon nañoo mën a dund peut-être cinquante soixante soixante dix ans du ñu dund quarante ans. Naby Vision. loolu noo ko mën a waxe how can yu say that how can you explain that naka nga mën a expliquer loolu.